gën a fës yéene kaayante ceeg ni mu waree malheureusement dafa yu mu fàtte woon a ci dossier bu asu nday xadiloo bokk moom it ci sage femme yi ni ba keroog malade yi mu waroon surveiller dañoo bari moo tax mu fàtte woon yenn détails beneenub sage femme ñu naan li tax jotu woon a rendre compte médecin gynécologue bi booba fekk na médecin bi dem mu ne ci la sama collègue bii di Ndeye Khady woowee téléphone docteur Jojo Pouy ne ko jëkkëri ndem si yàlla asu soxna ji nee dafa bëgg ab certificat de décès mu ne li ko docteur Jojo wax moo di su yàkkamtiwul na xaar sinon ngeen bindal ko ko mu ne sama collègue bi wax ma ko ma ne ko lu mu wax ci diagnostic bi mu ne ma nee na nañu ci def mort naturelle enquêteurs yi ne ko yow en tant que femme est war nga bind ab certificat de décès Penda Diack ne leen musuma ko def keroog laa koy soog def te médecin bi moo ko sant Maymuna mi jur ndem si yàlla ngi wax ci journal L'Observateur kàddu yu mujj yu asu wax laata muy faatu mooy yaay uppuma dama tàng est suba dina ma fi fekk fégal wax joojee feggal L'Observateur te fekk ma ci Libération ñu wax ci leneen yaa ngay gën a leer ne xale bu jigéen bii di TH Mboup am fukkeet ak ñaar di cousine ci ndem Sella Anta Ndiaye ndekete lam waxoon enquêteur du dëgg keroog àllarba ci ngoon lay soog a wax dëgg ji ca lay soog a ne bokk na it ci yëf yi li xew libération nee nañu moo di xale bii di Anta dafa bett TH Mboup ak Mamadou Ba ñu doon def yëfi saay-saay maanaam di sëy ca tabax bu yeggul ba ñu bañ mu nettali ca la ko jàppee TH Mboup ne a ne tolluwaayu réew mi journal lay fo nañu Sophie Gladima ministre énergie Mansour Faye ministre de la santé ñoo aayowoon démb ñu àndoon ko nag ak porte-parole gouvernement bi di Omar ministre collectivité territoriale yéenekaay bi nañu waxtaane nañu fa train express régional bi waxtaane fa mbirum hydrocarbure waxtaane fa mbirum dem si yàlla asu grande offensive du gouvernement noonee la journal lay fo tënke ci xëtamu njëkk Sud Quotidien kàddoom ci xët mu njëkk bi mu fay wax ne système sanitaire bu Sénégal royukaay la ci espace UEMOA bi ak ci déndub Afrique bi direct ci news nañu mi ngi nax boppam moo Abdoulaye Diouf Sarr nañu wax ci lan lañu mën a sukkandiku ba wax ne système sanitaire bu Sénégal dafa performant performance ci ban fànn direct ci news ne ko monsieur le ministre ay malade ñuy séquestré ci hôpital yi ndax ñàkk fay seeni facture frais fii ci Sénégal lañu koy comme fii ci Sénégal lañu ko gis monsieur le ministre ay fajkat yu dëkkee ñaxtoo ko xultu ndax ñàkk bég ci seenub liggéey fii ci Sénégal lañu koy gis léegi nag monsieur le ministre de la santé wax ñu ci fan la Sénégal performant wee ci wàllu santé ci wàllu transport bi journal las nee nañu Mansour Faye ministre transport terrestre infrastructure ak désenclavement mi ne woon démb ci ndaje mii di gouvernement face à la presse joxe na fa ay xibaar ci train express régional maanaam cinq millions passagers li mu jur ci xaalis toll na ci ñetti milliards journal Tribune téye gémmiñam ndax waaru ci waxi Mansour Faye yéenekaay bi nañu xibaar yi Mansour Faye joxe démb ci train express régional bi dafay gën a dëggal yàqum xaalis gi ñuy wax ci TER bi Mansour Faye nee na ci ñetti weer liggéey nañu ci ñetti milliards journal bi nañu bu ñu ko calculé at mu nekk fukki milliards ak ñaar la train express régional bi war a liggéey ci jamono jooju Sénégal moom war di fay ñeent fukki milliards at mu ci diirub ñaar fukki ak juróom